laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah abonné leen ci seen seen YouTube Darou Fall TV abonné leen ci seen seen YouTube Darou Fall TV. doon taraf dase nit dina am kon teel na farlee tey te buy dee tey dina farlee léegi xam nga loolu loo ci boole tey dana léegi léegi la doon te ka digg nag lan digg nag waaye duñu bëgg nag ñu nekk nag defal kenn dig loolee bëggam bi ba kenn lu dee loolu nag lu ngeen yaakaar ne su ngeen ko ci boolee yéen bi ñu baax yéenu dana woyof ndax lu ngeen yéenu yéen sëñ bi ngeen ko ñu baax ñi ngeen ko yéenu rawatina quartier yi ma xam ne quartier Fall la da ngeen war ba lu baax lu ngeen fexe xalaat ko mu njëkk a génn ci seen ndam génn nag du yàqu du tooñ du moy bu njëkkee ci yéen yéen lu jógee ci yéen rek mën naa day réew ah, bu nee ci kër a Fall tàmbali mm-hmm. lu lu ab soxla rek mën na ko baaxee ba ba ñëpp jot ci ah, kon nag da ngeen di bàyyi wutu seen mu xel ah. am mur du doom xelam da koy bàyyi muy jom jom lu ne lu mu xaar mm-hmm. lu mu yaakaar ne bu ko defee mm-hmm. noppale noppalu te tàmbalee yu ay kilifa am rawat dina sëriñ bi na def loolu wax loolu waaye boo xam ne waxee nag ak ndaw daa si ci moom ba noppi bu dul am xelam rek du ko jëfe fenn loolu bu leen ko dara yar yéen lu hmm. ngeen yaakaar ne bu ngeen ko defee rek hmm. quartier bii la ca génnu sarafal ji bëgg hmm. ak ñu bokk ñu bokk moom parce que ñëpp dañ ci ànd nangu leen loola te def ko gën a xaraamul ndax kenn lu ko wax du lay yëri ci loolu loolu loolu loolu nangu leen ko fii daa fi ne ci ci gannaawoon daa am mbooloo moo xam ne daana ko def su guddee numéro quartier bi di ko di ko sàmm xam naa def kër ga ñaar téeméer noonu la noonu la ñaar téeméer dina nga faa ne daal ba sama seen la ko kelaw nga soxor mënu mu ni marit yi marit yi mm-hmm. xam nga marit mooy aji fétér xam benn ñi nit ñi fétér waa ñi waa Ndoyeen ñi waa Ñangeen ñi waa Njaxeen ñi ñoo ñoo laaj ba xam ne weer ba yoro de ñaar si nga jox ko sa morom jaam jaan dimbale ko sax ci dox bi dox ci at bi rek nangu daa daa du fi masa garre yi no fekk waxee daa dëkk fa ma dëkk ci Daaru Bele waaye mu bàyyi fa ndeyam nag ak bàyyam ñëw ci dëkk bi nag deful lu war def waaye mu sàcc gànnaar day yéen mu jàpp ko nu ñëw ba toolu kër gi ñu ñee jàpp ko muy leen taalibe Sëriñ Musaa Bara la ñu kon nu ko ni mbaa ñaawa ngi jaraay bi ñu ñu ko daan yóbbu ko Sëriñ Musaa ñoom xam nañu ko suñ dee suñ fekkee suñu tëdd nii itam njaw njaay nga fa xam booba nii nga xam moom ne mba njaw daa tëdd per mbaa bi maa ngi dégg ñu xam yi daa sàcc ay ganaar ndox ma sama ganaar yaay taalibe Sëriñ Musaa Bara la ab diwli day day baax ndax ko waaye man mën njaw na ñuy njaw ci daal nettali njaw ko tey xam ne moom waaye da ko bëgg nag yéen ma maanaam xamoo ci dara xam naa suñu tari suñu soi nangam na da ko bëgg a ni moo ko tey xam ci waa kër gi la bokk waaye gaa bàyyi na fi ndigal ndey na mu am fi ndee dina joxe mën yem ci lii lii lii da rek fexe leen ba mot ay ay ay nangam nangam yeneen nangam yu am njëriñ yoo xam ne hmm. su ngeen ko defee ñu baax ñu ànd ci ay yéen hmm. ñu bon yi nag leen ñu def laa ilaha illallah laa ilaha illallah abonné leen ci seen seen youtube Darou Fall TV abonné leen ci seen seen youtube Darou Fall TV